bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyihi wa mustafaahu sallallahu wa sallama alayhi llahu wa alihi wa sahbihi wa man walaahu xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim nee na baabu maa jaa fi tarajjuli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam naa mooy fukkeelu bind ak benn mm-hmm. fukkeelu bind ak benn mm-hmm. baabu maa jaa fi tarajuli mm-hmm. rasulillahi sallallahu alayhi wa buntab li dikk ci jaratu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tarajulu wolof jaratu la koy wax binaa moom ngeen di wax peñe wu ay peñe français la ñu di ko wax kuum sa bopp bi koom anglais la olof jaratu lay wax wa fiihi xamsatu ahadis dana ci indi juróomi xadis hmm? maanaa bunt bi daal mooy buntu toppatoo gi yonantu sallallahu alayhi daan toppatoo kawar ndax digle na ne ku yàlla jox kawar danga ko toppatoo nee na xaddathana isxaaq bnu muusa al ansaariyu sëriñ bu ñuy wax isxaaq doomi muusa kay ko jóg lansaar nettali nañu ne xaddathana maan bnu isa sëriñ bu ñuy wax maan doomi isa nettali nañu xaddathana malik wax imaam malik doomi anas di imaamu ahlil madinati nettali nañu an hisham ibni urwata jëlee ci sëriñ bu ñuy wax hisham doomi sëriñ bu ñuy wax urwata an abihi hisham hisham jëlee ci baayam urwatu an aishata urwatu jëlee ci ndey aishatu suñu yaay radiyallahu anha yal na yàlla gërëm ko mbooleem soxna yonantu sallallahu alayhi wa sallam qaalat mu ne kuntu urajjilu rasa kuntu urajjilu rasa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daan naa peñe bopp yonantu yàlla muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam wa taman xaaidun maa ngi aji mbërëg maa ngi ci sama yu mbërëg lu tax xadis ji solo dafay wane li ñu wuutale ñun ak yahud yahud bu seen jabar ne aan ci seen baax maanaam bu gisee mbërëg dañ leen daan ber duñ bokk ak ñoom néeg sàkkaat yi bokk ak ñoom lal mm-hmm. waaw duñ lekk sax seen ñam mm-hmm. dañuy mel ni ku leen séexlu mm-hmm. alquran nag ñëw ñu ne loolu jaaduwut yonentu sallallahu alayhi leeralal ñu ko ñe sañ nañoo def ak soxna yi lu ne ba mu des jëmmi sëy muy wane ne kon yonentu sallallahu alayhi wa sallam bokkut ci njubam jigéen gis baax mu di ko ber ndax mu ne maa ko daan topp tool boppam te fekk maa ngi ci sama jamonoy baax kuntu nekkoon naa urajjilu di jarat sa rasuulillaahi boppa bi yonentu sallallahu wa sallam bu tedd bi wa ana boobu man xaayidun maa ngi aji gis baax gis baax wala gis mbaax xadis mm-hmm. ju wér la xadis mm-hmm. yi ju topp xaddathana mm-hmm. yusuf ibnu isa sëriñ bu ñuy wax yusuf doomi isa nettali nañu xaddathana wakii sëriñ bu ñuy wax wakii nettali nañu imaam shafii dana tudd xakaytu ila wakiicin suua xifdiyi fa arshadani ila tarki almacaasi wa aclamani bi anna alcilma nuurun wa nuuru llahi laa yuctaa li aasi mu ne bés dama tawatal shakawtu shakawtu ila wakiic bés dama tawatal wakiic sama ñaaw mokkal mu ne ma baal mooy ndax xam-xam leeru yàlla la te leeru yàlla hmm. ñu ko jox mooy kat hmm. te Seydina Shafii ku sori mooy la hmm. waaye bari na yu ñuy xeeb fekk dana nëxal xel waaw ku mel ni Shafii ni mu mënoon a su waxee lool ci moom ak ni mu sàmmoo ñun lay waxal xaddathana Waki' sëriñ bi ñoo Waki' nettali nañu xaddatana rabiu bnu subayx mu ne sëriñ bu ñuy wax rabiu doomi subayx nettali nañu an yazid bni abaan jëlee ci yazid doomi abaan an anas bni malikin jëlee ci seydna anas doomi Malik saxaaba yonantu la sallallahu alayhi wa sallama radiyallahu taala anhu yal na yàlla gërëm ko moo lu Anas wax qaala mu ne kaana nekkoon na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yukthiru di bëril dahna rasihi diw boppam mu ne yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ku bëri lum daan diw boppam la wa tasriixa lixyatihi ak booyal boppam maanaam di ko koom di ko jarat di ko waaw booyal mu mu rafet noonu wa yukthiru muy bëril alqinaa alqinaa qinaa nag tur la ci lépp lu ñuy muure bopp hmm? waaye bu ñu waxee xinaaw fii morso la ab sagar la bu ñuy teg ci bopp gannaaw buñ ko di diwee ba noppi boo diwee sa bopp bam tooy sagar boobu <clears throat> nga cay teg mooy xinaaw mu ne xataa ka anna thawbahu ba mel ni yëreem sax thawba zayyaatin wala bu zayyaatin mm-hmm. yéreeb jaaykatu diw la mm-hmm. maanaam dafay niin ba mel ni mm-hmm. ni yéreeb jaaykatu diw di niine waaw xadis ji nag xadis ju euh, lompañ la maanaam yonentu bi sallallahu alayhi wa daf daan toppatoo kawaram gaa waaye nag di ko diw ba yére mel nii yëréb jaaykatu diw kooku àggut ca woon mm-hmm. ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallama mm-hmm. eh, gën naa eh, gën naa am mesure noonu mm-hmm. waaw xadis ji nag eh, rabix ibn sabix subax laa waxoon waaye sabix la rabix ibn sabix mi ci nekk borom taqrib muy ibnu xajar nee na waxkatu dëgg la waaye ku ñaaw mokkal la Hmm? waxkatu dëgg la waaye ku ñaaw mokkal la jaamakatu yàlla la woon jihaadkat la woon waxkatu dëgg la waaye ku ñaaw mokkal la mokkal la mbaaxut am na keneen ku ci ne ci hadis ji ku ko lompañ ku tax ñu ne dafa lompañ mooy yazid ibn aban mi yazid ibn aban borom borom taqrib muy alxaafis ibn xajar asqalaani wax na ne ku lompañ la maanaam ku faible la ñaar ñii ci xadis bi tax na xadis ji duñ ca sukkandiku te maanaam it dafa wuuteeg liñ xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy euh, digg doomoom xayrul umuri awsatuha wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan nee na nettali nañu hannaad bnu sari xanaa doomi sëriyu xaddatanaa nettalu nañu abul ahwas an il ashcath jëlee ci ashcath ibni abi shacthaa'i doomi abu shactha mu ne han abihi jëlee ci baayam an masruqin jëlee ci masruq an aishata mu jëlee ci suñ ndey saydatuna aisha radiallahu taala anha qaalat mu ne téere bi anhu la la war a in kaana rasulullahi in gi tawkiid la rek in kaana rasulullahi dëgg dëgg yonentu sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na la yuhibbu di bëgg atayammuna jiital ndeyjoor atayammuna njëkkee ndeyjoor fi tuhurihi ci laabam ida tatahara ndem dafay sangu mbaa muy jàpp tiim wa fi yii ak ci peñeem ci jaratoom hmm. ida tarajjala ndem jaratu na hmm. suy peñeew peñeewutit dafay bëgg njëkkee wetug ndeyjoor gi hmm. wa fi intiaalihi ak ci dàllum idan taala ndem sol na dàll suy sol dàll it dafay njëkkee waaw ndeyjoor maanaam yonentu daal lépp lu muy def rek daf daan bëgg di njëkkee ndeyjoor waaw ndegam lekk la ndegam naan la waaw ndegam sangu la ndegam jàpp la ndegam tiim la waaw ndegam peñewu sax la nga xam ne léeg-léeg doo ci bàyyi xel ndegam dàllu la sax te loolu dafay dimbale nit ki ci mu focus lu muy def rek dana ko def ak sago dana ko def tamit ak xam ak mesure ndax ma ngay seet la fa muy njëkkee su fekkee ne nit ki du seetlu la muy def dafay mujj nekk lu automatique su ko defee bu yuuram dootul liggéeyati mm-hmm. te moom ëpp na loolu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm, mm-hmm. moo tax buy dugg ci jàkk njëkkee ndeyjoor waaye buy génn bëgg ndeyjoor bi mujj fu baax fii di jàkk bu dee toilette mu digal ñu njëkkee càmmoñ bu ñuy génn ndeyjoor njëkk a génn moom ki gën a baax bàyyi fa càmmoñ bu dee kër nag ndeyjoor ay njëkk a génn mooy njëkk a dugg nee na xaddatanaa nettali nañu muhammad ibnu bashar xaddatanaa nettali nañu yaxya bnu said an hisham ibni hasan an ilxasani albasriyi an abdillahi bni maghfil an abdillahi bni maghfilin radiallahu anhu qaala mu ne nahaa tere na rasulullahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam an tarajuli ci jaratu illaa ribban ndere cig diggale dana danañuy wax naan zur xibban tasdat xubban soo bëggee sa cofeel ci sab xarit yokk bul def bés bu set nga siyaare ko del def léeg-léeg nga dem léeg-léeg nga raar dégg nga xibbu dana firi tey nga peñew suba doo peñew waaye jubluwuñ ci loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu peñe mm-hmm. waaye duul ne bàyyi ba ci kanam mu soog a peñew wala ba ngoon mm-hmm. wala ba suba waaye duul ne foo ko fekk rek mu ngi yore peñew bi di peñew mm-hmm. loolu rek la bëgg a wax xadis ju wér la hmm? naha rasulullahi sallallahu alayhi wa tarajuli illa xibban hmm. xadda xadis ju mujj ji xaddatana alxasanu bnu arafata qaala mu ne xaddatana nettali nañu abdusalaam bni abdusalaam bnu xarbin an yazid bni abi xaalidin jëlee ci yazid doomi abu xaalid an abil alaa'i jëlee ci abul alaa al awdi an xumayd bni abdirahman jëlee ci xumayd doomi abdirahman an rajulin jëlee ci waay min ashaabi nabii bu bokk ci àndandoo yonent wi mm. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi mm. wa sallama mm. mu ne anna nabiya naka wa alihi wa sahbihi wa sallama kaana nekkoon na yatarajjalu yatarajjalu di jaratu ribban ci diggale dafa am am na ak xëy bu gi ak fàddu ci diggale maanaam su pañewoo tey bàyyi ba suba mm-hmm. ñu ne déedéet li muy won rek mooy duwuloon koo xam ne fu mu fekk foo ko fekk ma ngay pañewu mm-hmm. léeg-léeg yees yii saa mu pañewu mm-hmm. yii saa dégg nga du du du du ko def maanaam dana peñe boppam ba boo fekk bopp bi ma nga ma nga ma organiser wu waaye nag du nekk foo koo xam ne foo ko fekk rek ma nga téye jaratoom yoreb seetam di peñewu mooy koo xam ne dafa bëgg taar bu mu ëpp wala dafa bëgg àdduna bu mu ëpp mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam melu toon noonu xadis mm-hmm. ji tamit mm-hmm. am nag lompañ xadis hmm? bi am nag am nag am nag am nag lompañ ndax Yazid ibnu Xaalid mii waxkatu dëgg la waaye dafa bari woon lu mu daan juum te dafa daan def tadlis ni ko borom taqrib waxee hmm? waaye eh, naha rasulullahi an tarajuli illa xibban hmm. mook mook bi jege nañ ci maana hmm. kon mën naa mu dëgëral ko hmm. hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim amin wa iyaakum